défense bi nga xam mooy aar bu di anticiper lépp loo xam ni mën na doon ngaañaay bu jëm ci wàllu ay lakk ak bâtiment bi demee noonu loolu moom daan ko def ci fan yi ñëw bu soobee yàlla euh, tarxir boobu nag propriété bâtiment bi foog ñu demandé ko mu tarxir en attendant yu xool loolu surtout bâtiment yi ci wër parce que li daanu mën naa mu def effet ci bâtiment yi takkaloo moom gannaaw loolu nag li ñuy wax euh, problématique yi daaru Ndakaaru moom du Ndakaaru kese bëri na ci ay dëkk yu mag Dakar parce que wàllu bâtiment bo xam ne menaçant yi maanaam bu ñu waaj dafa am code bu nane naan de la construction mo ci jox ay prérogative yu am solo jox ko ko goxaat yi ñun liñ ciy def rek moy heure bu ñu signaler da danañ def visite bi and ak protection civile euh commission auxiliaire wala ñu and ak inspection des bâtiments ñu jël li ñu tuddee arrêté péri maanaam muy ndogal boo xam ne day wane ni bâtiment bi mën na daanu arrêté boobu nag maire mo koy jël commaire bu jëlee également mën na ci toxal ñu ñu évacuer maanaam ñu demander à ce que la bâtiment bi ñu ñu ñu daal di koy quitter malheureusement nag sénégalais